kunanan kedo kete jai kulato nan nambara kama kijate wao baduran ayo wakile bapare bende bedalu kerja wao banyana nan kedo kete jai kulato nan nambara kama kijate wao baduran ayo Uh-huh.

Sagali do tuno konkupeso, diram tu, dimakupeso. I'm fii à travers Yoff Mbollo TV ñoo ngi leen di nuyu ah, di leen ziar ah, bu baax a baax a baax ñu ñëwaat ak yéen rek ah, ba tey fii ci Yoff Mbollo TV comme niñ ko doon defee boobu ba tey ñu ngi fi nga xamante ne nii mooy si daral yi fii ci Yoff ñëpp xam nañ ne tabaski mooy waaj a jot te bu tabaski di waaja a jot fitna taxaw mu nekk événement boo xamante ne nii képp kuy parent rek bu desee weer yitte yi mooy taxaw xale yaa ngi fi déjà nga war am xar ak lépp ñu ngi fii euh, ci euh, daral yi nekk yoof yëpp euh, lu ci nekk rek incha allah dinañ leen ko di ngeen xam njëkk yi di ngeen xam difficulté yi ñu fiy dund di ngeen xam bànneex bi ñu fiy dund tamit c'est grand maa ngi lay fay bi naka la Moussa lay Moussa yow yaay gérant wu dara waaw maa nekk fi waaw si dara ñaata temps yaa ngi yar maa ngi plus de vingt ans maa yar ay xar plus de vingt ans maa yar ay ban expérience nga ñu si mën a li ma si mën a wax ah, bari na quoi si surtout xaru tabaski yi mom la ëpp lu may liggéey waaw chaque année maa ngi def opération tabaski buñ ñu oree ba pare damay yar sama kër en même temps damay ëpp xaalis di jëndaat si si gars yi quoi. d'accord naka ren ren naka la demee. ah ren préparation tabaski bi gisaguñu xar yu bëri en même temps prix daal mi ngi varier entre 50000 ba 300000 waaw. ban satisfaction nga ci amagula bi nga commencé ah ñing ci siy sant yàlla ñu ngi ay fajj suñu ay soxla di ci dimbal suñu ay parents di ci dimbal suñu ay frères et sœurs di ci di ci suturu dal manam nah. ah, bi yeen difficulté ngeen fi dund. wa fi dañuy am ah, problème xont mo ñu gëna a sonal bu ñëwee fi da ngay financer lu bari ya bëri bëri bëri bari xaaliss bu bari ngay financer pour gérer sa xarit parce que xarit dañuy dund mo tax ñi melni dañuy am problème électricité aussi ndox bi tamit day yéex quoi. effectivement parce que dañoo gis ne fii nii ah, câble bi fi nekk nii dégg naa yéen a ko fi defal. waaw ñun ñoo xool ah, dem si bâtiment ba la ñaan fa courant ñu joxe kenn ku nekk euh, génn xaalis ñu jënd ay lampe mottali câble yi waaw. yàlla na yàlla def nga xarit jar ak jàmm. amiin ñu ngi leen di remercier aussi seen liggéey quoi. d'accord merci grand. merci. frère. waaw maa ngi lay fay Mariama. waaw delloo naa la ziar Mariama. Euh, yow nga nekk gérant euh, euh, daral bii nii depuis ñaata temps yaa ngi def opération. opération tabaski moom buñ la waxee temps bi ñu si def moom buñ la mënee wax temps bi moom waxuñu dëgg parce que boobu moom dëgëraguñu sax maanaam sama papa la laa fekk mu koy def affaire bi maam si amour bon yàlla lii la lii la lii la def daal xam nga rek. dafa fekk mënuma wax mais ma manoon wax moom dina gën a xam ma waaw. préparation tabaski bi. metti na nag metti na waaw. ren naka la defee naka xar yi ah, ñu ngi dem wala dafa yeex wala naka la demee. yeex na nag client yi nee nañ xaalis moo amul affaire yooyu noonu xam nga waaw mais ñu ngi ñaan yàlla mu jàpp si daal xam nga. est du seen xar yi ñoo cher tamit. mais nag dund bi moo seer il faut ñun ñi di calculer loolu aussi. dunde bi moo cher affaire yooyu aliment bi yow boo demee marché xam nga yaa ma gën a xam. mais yéen fii nii ay nit dina leen fi fekkee di leen sponsorisé wala. non non fii moom sponsor yi bi yenn côté rek lañ ko gis moo tax duñ tudd sax xam nga waaw di leen jàllale ay pipax yooyu noonu mais nun dañ gis mu féete boor dara bari na fii ay gars yu bari ay place yu bari la mais ñaari sponsor lañ si gis jarul may tudd tour bi xam nga parce que jaaruñu fi mënoon nañ yaatal mais yaatal. ñoo yem foofu wala ñoom ñoo ko demandé. non ñoom demandé wuñ ko dañ ñëw jox leen ñu jël te kuñ jox dangay jël mais xam nga war noon na mën a gën a yaatu quoi ñun ñu gis suñu bopp ñëpp parce que ñun daral bi yoof ñëpp bokk ndey bokk bàyyi xam nga lépp ñooy xàccindoo ñooy dóorandoo waaw mais lépp naes na nag quoi. merci beaucoup. waaw mais merci tamit yow Mariama yoof mbooloo sa kaw sa kanam bëgg nañ leen. yoof rek a fi ne. yàlla na jar ak jàmm incha allah. amiin incha allah amiin waay bëgg nañ leen. tonton nuyu maa ngi lay fay. tur la. Cheikh Baytir mbenga la. Euh, tonton depuis ñaata temps yaa ngi def opération tamit. Euh, jàpp ma ko mais xam naa ëpp na vingt ans moom. Mhm. naka ngeen euh, commencé dundee li nga xamante ne mooy tabaski ren. ah tabaski ren ah sant yàlla rek comme ni ko daan dundee rek. Mhm. waaw malgré que dund gi metti na ser na mais comme ñun ñoo bëgg yar ci suñu xol daf ñuy jaral motax ñu ci ray suñu bop di lancer appel rek monsieur le ministre Abdoulaye Diop sar suñu mbokk la suñu xarit la suñu doom nday la suñu lepp la euh, lenn rek lañu bëgg si mom parce que xar yi xat nañ si biir kër yi mënatuñu dëkk si kër yi fu nit warona ñu ko def gétt xar yi nekk fa boo duggee si kër yi teraas yëpp ay poulailler lañ ko def pour ganaar repas bi ñooy may neex na mais li ñu gën a bëgg mooy collecteur bii bu ñu mënee waxal ax président ñu daggal lu ñu fi lu tane mu nekk ab daral man day Cheikh Baytir Mbengue loolu moo ma gënal bu ko defee xar yëpp duutuñu nekk si dëkk bi dañuy nekk si daral bi ñu utal ko làmp utal ka ndox utal ñu gardien mu mel na comme daralu seeraas bi ndax fii yoof ba ngor ba wakaam ku fi soxla ginaar sax da ngay génn dëkk bi waxoon naa ko fi umu xayri mu ne dina si taxaw ba yàlla def mu jëlee ko fi moom mi fi yàlla teg ñu ngi koy ñaan te mu nekk suñu mbokk nekk si ñun ñu ngi koy ñaan mu dimbali ñu lillaay war a suuli fii ñu am fi ab daral fixé xam ne dootuñu déranger kenn kenn dootuñu déranger loolu daal mooy suñu mébét ma wax ko pour kaddu yof gep nak ndax yof mool yi euh, maçon yi chauffeur yi ñep dañu yar kon nga xamne ne kon yof ñep ay éleveur lañ euh, ndakaaru gele éleveur ndakaaru yi fi lañuy jënd ci ay xar dem Dakar di ko fa jaay fi lañuy jënd ci ay xar dem Dakar di ko fa jaay xar mu baax munu jënd Dakar wala ñu génne ko ci télé yi fi leen ko jënd ci yof yobbu ko Dakar éleveur yi Dakar yépp yof gi lañuy jënd seen xar yobbu jaay ji ta dañ nan ñom ñofi da daa xayar te yof yoof ñoo yar ñoom yaruñu de wa yof ño yar ñom ñu ñew jël ko ci wa yof yobbu kon wa yof war nañ am ab daral li day lay lay ñaan yalla moy sama tawat ma joytu ko ministre pour kàddu yof yépp ñoko bokk tawat ndax ripas bi neexna waye amna am ko jënd suñuy pos ndax ripas kessé dundalul xar dañoo ñebbe dañoo mbokh dañoo dugub dañoo laala dañoo xorom mo ngi nonu merci beaucoup jerejeuf frère nuy wa ñu lay fay bu baax dina dalal bu baax. tur bi naka la. Euh, du jeen jaagne yof na Yoff du jeen ne depuis ñata temps ya ngi yor operation operation tamaski mom duma ne yàgguma si mais xaw naa si yàgg tuuti quoi neexul mu dédé ma ngi ci bëgg def ma ngi ci bëgg def bu mu dédé fukki at quoi wa ñu ci bëgg yàgg tuti quoi. ren naka nga ko commencé dundé difficulté yeeg euh, bànneex. waaw beneen sant waaw xam nga affaire moom amul la rek dañ judd fekk suñuy paay di yaree xar xam ak suñu yi ñu ñëw am amur bi di ko def mais bëri na ay jafe-jafe yu si nekk yu bëree bare bare bare bëri comme xam nga xamoo fi nekk ni di fi yaree xar état moo ñu ko moo ko reconnaître te état bu reconnaître dafa am yu mu lay jox muy wàllu courant di wàllu ndox te loolu dafa sooxe trop gisuñu courant gisuñu ndox ñu ñoo def ay démarches sax demut ay fil fay gars yi ñu indil ñu courant bi taw état moko ko doon def même ndox bi. naka xari mi ngi jar. wa xari ñu mu ngi jar na nga dank mu ngi jar lan motax tax ren mu xawa a yeex ni dans 5 jours xawma 6 jours de tabas waaw du du côté yëpp quoi amna ño xamna ni ma sha allah ñu ngi jaay am ño xam tamit xawna soxé ni ndax gaay yu bari ñu xaar da dem heure bi am ño xam ne da dem heure bi quoi dañu jëm langal pour xari bari ñu mëna am ay prix yomb xam nga sans dépense nit ki quoi am ño xam dañu dañuy jënd bàyyi fi. après mooy loolu quoi am na. période tabaski bi yëpp ban moo nekk seen ban moo gën a nekk seen période bi nga xamante ne xar yi si lay gën a. non ñun amuñu problème boobu negeex am nañ ay clientèle quoi ñoo xam ne chaque année dañuy ñëw suñu ñoo leen di jaay comprendre nga ñun amuñu problème boobu dañ fiy jënd bàyyi kas fee bu ñu jël si ko am ñoo xam ne dañuy xaar waaw mais waaw pare gu ma waaye negeex xam nga li ñu gën a ñor mooy xam nga ay bi lañ ñu si dëkk bi di liggéey nekk ay jeunes comprendre nga ñu am fi ay ñu am fi lu mu deeree sax xam nga mooy suñu maire muy Abdoulaye Diouf Sarr ñoo ngi koy nuyu xam nga di ko nuyu Abdou Naar tamit au passage ni wax suñu grand la ku baax la mais tamit taxawaay bi xaw na des lu bari quoi ne ñoom ñoo war taxaw taxawu seen i doom yëpp ñun buñ soxlaa dañ leen di fekk si kon ñun buñ soxlaa war ñëw gis suñu bopp si ñoom mais du courant du dara loo xam jàppale nañu ko du yoon ñooñu war a andil courant andil ñu ndox ndox bi bu ñëwee tey suba du ñëw ngay jëndee bëriga 700 courant bi ñoo ñun jaayante demul ay fil électricien jaay defal ñuy ñuy fay te dara li Sénégal yëpp dañu leen jox courant mais loolu du yoon quoi mën nañ si jàpp xam ne seen doom lañ quoi dañuy liggéey oui. merci beaucoup dinañ ko dégg. amul problème merci kontaan nañu. waaw maa lay fay. Michel Gueye ah, la xam-xam ci xarit depuis ñaata temps yaa ngi def oh, yàgg na nag man na ma wax ne damaa judd rek fekk kat parce que damaa judd fekk ay xar suñu kër. naka nga commencé dund ah, fii nii. Ah? waaw fii moom fii moom chaque année ay jafe-jafe xam nga toog góor yàlla moom da ngay dund ay jafe-jafe dund ay ay métit waaw ak i bànneex quoi parce que loolu ak loolu ñoo ànd. boo ñu doon wax jafe-jafe yi lan lan lay doon. waaw dèjà fii moom nekkin bi xam nga à chaque fois duñ fi am courant duñ am courant en plus duñu am ndox bu doy xam nga ndox bi tey bu ñëwee tey balaa muy ñëwaat yàlla xam bon je te daral bi nee nañ état bi de ko reconnaître xam nga te daral bu état reconnaître moom war nga am ndox am courant. est tamit yéen ñi yéen ñi yor euh, opération itam dem ngeen di euh, gisal. waa mais ñun am nañ président. ñom doon nañ ko au téléphone avant l'avant que li di xew avant daral bi di am commencé doon nañ ko au téléphone muy dem ci ay réunion affaire réunion daral mom fi ci Dakar ñun liñ xam bu ko état reconnaître rek dan la wara jox ndox jox la courant ba paré en même temps indi la sécurité bu lay sëg kaaraange parce que tamit mënoo fi tek xari tol ni ta ñun ñun ñëpp fi lañ dëkk ah di liggéey saati ñu defuñu dara mais kon kay dañu war a jàppale ba. mais lan moy sa ay ay prix. bon prix abordable mo fi nek sans dépend rek amna na sax bu cent jëm kaw amna bu 100 jëm kaw sans dépense nit ki lu mu bëgg xam nga nit tamit doo ñëw fekk luy jar téeméer nga bëgg see fay fukki dërëm. moo def amour boobu noonu ba tax euh, tout le temps hein, chaque année tamit ngeen gën a am courage di dajale xar yi. waaw mooy li ma wax rek sànq si début bi parce que dañoo judd fekk suñu kër ay xar xam nga ñuy màggandoog moom ba léegi ni yàlla def dañu am amour bi malgré que duñ si am boobu som koom-koom mais dañu am amour rek pour chaque année. du ngeen si am koom-koom loolu waxu télé la wala wax la. non wax la wax boo xamante ne moo existe waaw c'est pas que damay dóor wala affaire dinañ si am mais pas tellement que ni que nit ñi di yaakaare. mais xar yi yenn yi yéenay dem jëndi ko yenn yi ngeen yar ko. waaw yenn yi ñoo ko yar yenn yi ñooy dem jëndi ji ko dañuy dem si àll bi wala ñu dem si dëkk bi fii di wër ñi nga xamante ne bëgguñu ñëw si daral bi ñoom ñu jënd seen ay xar ñëw tekka fi buñ si amee. du buñ si amee xar bu ne 10 000 sax ñun dañuy bàyyi mu dem. mooy li waaw am na sponsor boo xamante ne ñëw na dañu jàppale mooy Sidima xam nga moom ñëw na def benn tuuti effort malgré que doyul mais moo gën ak neen quoi parce lu mu dee dee may nañu ay quelques sacs repas. boo xamante sax moom moo ñëw envers ñun xam nga li ma moom moo ñëw envers ñun. ban message ngay lancé ak lan. waaw ñun l'essence message bi mu gën a bëgg ñu ñu wax si mooy que gis nga boo xoolee daraal bi fii mu tàmbalee. ba fële mu jeexe ay doomu yoof kese ñoo fi nekk ñun ñëpp yoof lañ dëkk xam nga te yoof amul benn daral boo xamante ne bu dul événement bii nii dinañ ko war a mën a am pour ñun bi dañu a jàppale ñu am benn daral boo xamante ne fa la ñuy loger comme collectif bii nii ñu collectif nii mais nañu si dimbali ngir yàlla parce que ñun bëgg nañu liggéey quoi dañuy dem liggéey bu ñu ah. tamit fi ngeen situé yu est ce que wóor na tam ah parce que boobu ba tey tamit dañuy gis xale yi di jéggi ak autorité. waaw mais xam nga tey ji nee nañ pont dafiy am te fond pont fu mu am am na passerelle bi fa war a am waaw bu passerelle bi ñëwee mais loolu war nañu see mën a dimbali moo gën kuy kuy jënd xaar fii si Dakar fii nii da ngay dem ba Pikine ah vers Pikine kon kay lu mu dee dee dee maire bi nañu jàppale dimbali ñu collectif bi bu ñu fi mënee am foo xamante ne dinañ fa loger si dara parce que dañuy liggéey rek ah nang ba ñu sax fay ñoom bu ñëwee di teg seen i juute yi ñun ñuy dagga di fay bañuñu parce que ñun ñoom na nga fii lañ dëkk yoof lañ dëkk cet ba cet maire Abdoulaye Diouf Sarr Abdou Naar ñu ngi lay demandé loolu jàppaleen si bu baax seen ay doom ñoo leen soxla si loolu bu dee nag dafa dégg maa ngi jégalu bu baax ah. merci beaucoup xam naa ne message bi dina jàll ndax ñoom dinañ ko dégg. maa ngi jégaluwaat bu baax a baax a baax comme ni misaal wax lay dëggal quoi ñu ne doomu Yoff lañ liggéey rek moo ñu ñor xam nga te tamit comme suñu état bi gis nañu affaire yoo xam mu ko fi indi d'accord ñoo ko si sant bu baax di ko gërëm mais comme repas bi mu ngi ñëw ñu ngi jox repas am nañu fi ay gendarme xam ne ñëw pour sécurité am na benn taxaw jàppas ñoom gendarme yi kon ñu ngi ko ciy sant di gis gërëm ni nga loolu lu baax la mais tamit dafa xaw a des tuuti rek dafa xaw a sooxe état dafa ko dara da ko reconnaître président dañ koy oo mu dem yu bari mais lan moo tax ñun yoof ñu desee pare si ay courant ay ndox yoo xam ne du ñëw dafa war a ñëw quoi tamit bu maire bi ñun gisuñu taxawaayam si daral bi quoi dëgg mu neex yàlla dafa a ñëw taxaw si jàpp si bu baax te xam ay doom ñoo fi ne di liggéey buñ soxlaa ñun nañ dem jox suñu kar kon nañ ñëw jàppale ñu quoi te tax ñuy jégal bu baax a baax sœur fay la yow. Euh, depuis ñaata temps yaa ngi def opération. bon man nak depuis 2009 nak ma ngi yëngu ci xar quoi wa 2009. Euh, yan difficulté nga ko dundé ak préparation tabaski. wa xar mom difficulté bi moy yar bi rek yar bi mo ci metti quoi xam nga nga jël xar at nga yar ko jëmax mom deben. bon dal moy metti way bi quoi di nga sang di nga dundal di am yaakaar xam nga. souvent xam nga yalla def li gën xar mi dé xam nga yooyu ay difficulté ba paré risque la quoi. Ah, parce que yaga mu dé waaw souvent dañuy yar xar nga tok ni rek ñu na la sa xar mi dé na nga liggéey ba wacce ñu xar mi dé mais lepp sante yalla la quoi. yow da ngay jënd di jaay wala xari ay xari waaw bon souvent dina yar kër ga mais souvent tamit damay def complément pour mëna def opération quoi waaw lool lay dund quoi. ban message ngay lancer waaw message bi mom bu ma koy lancé dama lancer yar kat yi rek xam nga souvent damay gis sax ku jël xar dugalat ko si biir kër gi xam nga xeyna da bëgg lo xamne bon da siy bëgg am satisfaction si loolu tax xar du loolu quoi xar moom moment la rek ñu àndax moom avènement la da nga siy am xaalis tuuti rek mais pas trop quoi gars da ngay gis ku jël xar naan buñ ma si fayul nangam du ma ko jaay wala déet te effectivement du noonu xar global bi rek xaalis bu jencu la rek mais mënoo si am bénéfice 100 pour cent da ngay gis sax souvent nit fi ne fi xar mi tee ay activité am du nekk si li mu newoon te xar da nga ko war a jaay dem nekkaat si leneen dem joobi ji waat la vie continue quoi man daal loolu laay message euh, yarkat yi quoi ku si dégg piri bu raisonnable na ko jaay mais bu mu jël xaram bëgg si yaakaar loolox loolu quoi man moom duma def loolu quoi waaw man moom franchement du ma def loolu quoi waaw. merci beaucoup oui ñoo far yow. tonton nuyu naa fay naa la. bi naka la. bay da sow. Euh, tonton naka ngay dundee euh, opération tabaski bu ren bi. opération tabaski bi dañ koy dundee moom mu ngi yomb naa xam parce que boo xoolee fii xar xar yaa ngi nii man suma grand bi laa fi ñëw di jàppale quoi Pape kii Pape Diaw yaakaar naa waa Yoff gépp xam nañ ko si affaire élevage. Pape moom yaakaar naa plus de trente ans kay mu ngi si moom waaw waaw mu ngi si plus de trente ans. d'accord ren naka ngeen ko commencé dund difficulté yeeg euh, ni mu yeexee. ni mu yeexee si. Euh, comme xam nga dañuy wax ne heure bi daan na fekk ñu si bari am xar mais comme weer bi dafa yeex de dee. waaw loolu waaw loolu xamatu bi xamatu euh, bi problème mu nekk am ñu bari yoo xamante ne xaalis ñoo ngi wut xaalis amaguñu am na ñoo xamante ne tamit ñoo ngi maanaam bëgg nañ yor nañu xaalis waaye bu ñu jëndee amuñu fu ñu ko def. parce que la plupart ñu xamante dañuy jënd xaar bayil la ka fi euh bobu ñu suma la tabaski ñëw jël si ko loolu loolu mu am na fi mom amna fi waaw mais mais problème bu ñëk bi problème xaaliss ci la bokk xaaliss mu amul amul tax xont xaar bi métti na waaw man mi si nekk ni rek di jox xaar yi rek daa xamna xaar xar yi dañuy lekk waaw xam gis xaar yi lekk xaar yi nekk dañuy lekk ben ben sac dañ ci lekk dans 2 jours waaw bon ça veut dire que saako bu jar 8000 francs waaw te tamit. mais tamit euh, mais. moom. moo tax ma ne euh, du guerre boo xamante ne da ngeen ko battre yéen kese. da ngeen am ay sponsor. waaw waaw parce après finalement ñëw na jàpp si quoi waaw boobu tamit bi mu ñëw jàpp si ñun tamit sóolu ñu woon loolu yëpp si moom ñoo ñoo ngi koy jaajëfal jëfal waaw parce que am na loo xam def na loo xamante jox nañu 15 sacs te sac bu nekk bu ñu ko doon jëndee tey 8000 francs fois 15 day jox mu dikkee ñu 100 120 000 yaakaar naa waaw loolu yëpp ay valeur yoo xamante def na ko ay teraanga waaw def na ko dëgg-dëgg bu ko neex gratuitement dërëm ñu xam nga lañ fay saret bi ko indi lañ fay si kuréel ñu génne 120 fay 1000 francs transport loolu dëgg-dëgg moom message bi ma mooy message ñu daal bu ñu mënoon am daal comme ministre de ku ñu jàppale chaque fois si comme li comme li sédiment def nii xam nga li dafa geste bu xamante dañ koy war a saluer dañ ko war a gërëm quoi dañ ko war a ñaanal yàlla tamit ah, man ñoo li mu mën ren bu déwénee yàlla mën lu ko daaxal tant que dëkk bi dañ a ñëw sa ko waaw loolu loolu xam nga loolu ay ay geste loo xamante ne bu ñëwoon ñu gis ko ñu xam ne suñu maire ñëw na ñu am yéeg-yéeg benn bi quoi moom te gisuñu ko te te moom lañ fal comme maire te mooy si mooy suñu maire bu pare de suñu ministre ah man maa ngi koy waale quoi waaye ñoo ngi koy ñaan beneen yoon bu ñu defati opération tabaski na doxantu bu fekkee mënul doxantu moom na euh, nga am ñu mu jox ñu xamante ne maanaam ay am na ay azo ay kii abla kii abdu naarang fi ñoom ñoo fi ñoom ñu doxantu. mais est-ce du li ñu voyagé moo tax ren kenn. ah dañu voyagé dañu waaw maa ngi soog a xam <laughs> maa ngi soog a xam loolu <laughs> loolu loolu billaahi maa ngi soog noo demee quoi. waaw merci jërëjëf. frère nuyu fay naa la soxna si. bi naka la. ok depuis ñaata temps yaa ngi def opération tabaski. depuis sept ans maa ngi si daral bi may nekk booy ba léegi même place laay nekk. yan difficulté ngeen fii dund. ah difficulté bi mooy fii daal problème suñu problème mooy courant courant ak ndox bi waaw ndaxte day am place yoo xam ne dañ am courant am ndox mais ñun fiñ ñu nekk nii amuñu courant amuñu ndox. bokkoo leen si ñi nga xamante ne dañuy cotiser 100000 100000 pour xëcc benn câble pour am courant. kooku loolu ñu def noonu cotiser boobu bu eggoon ba si ñun ñun dañ koy def ngir mën a am courant ndax ñun duñ jël suñu li nga xamante ne moom lañ investir lépp si maanaam si jur ba pare ñu ñëw ba fii ay jànkonte ay courant affaire yooyu. guddi gi nan ngay def fii ak guddi gi ah dañuy toog rek xaar yàlla da ngay gis client boo xam te day war a dugg si daral wi xool mu lëndëm man na fi bañ a dugg na dina am tiitaange. tamit du yow yaa waroon a lijjanti tamit sa courant. non ndax gars yi dañ mobiliser wu na ñëpp dañuy ut suñ courant dem si waa maire bi waxaax ñoom biñ demee si maire bi gars yi waxaax ñoom mais fële la yem bu fiilu maire bi fële la yem mais ñi ngi ma expliqué na 5000 5000 ñoom fële la tey et puis fii laa ko xamee ndax maa ngi koy a xam tey jii tamit. xari fii mi ngi dem ah, mu ngi jar. ah xari moom mu ngi dem ndànk ndànk moom. xari moom mu ngi dem ndànk clients yi ñu ngi ñëw ay benn benn mais waxaale bu tamit moo ëpp tamit waaw. est-ce tamit du weer bi li mu sori wala tabaski li mu yem ah peut-être mën na doon loolu. peut-être tamit mën na doon loolu man moom loolu laa jàpp moom. ah maa ngi lancé message daal na clients yi ñëw ñu jaay ñuy xar dem ñibbi si jàmm tabaski si jàmm ku amul xar yàlla na la yàlla dimbali ba nga am xar. ku amul xaru 500000 yàlla na yàlla di mu nga am 500000 waaw ndax kenn du gis yu mag teg sa bët si yu ndawi rek waaw xëy na nag poos moo yemul doole moo tolloowul quoi mais ku si nekk yàlla na la yàlla may sa wërsëg daal. frère nuyu naa waaw maa ngi lay fay bu baax ñaata temps yaa ngi def opération. waaw ça fait presque vingt ans ngi si opération tabaski vingt ans. Ah, ren moom xam nga ni ma ko yëgee mooy euh, xaru yar moom mënul yomb quoi franchement parce que dund xar dafa métti. yomb mooy lan. mënul yomb yomb comme ni ko gars yi bëggee quoi. si prix. yow après sa ay prix sa ay prix. su ma prix am sans dépense si li nga soxlaa quoi am 200 am 175 am 180 am 125 am 100. dégg naa tamit ba parti bi ngeen nekk nii si rond point bi moo fii moo am courant ñeneen ñi amuñu courant loolu naka la demee noonu yéen a ko demandé wala yéen nañ defal bàyyi ñëpp. non loolu moom gars yi moom dañ ne woon côté bi yëpp la ñuy defal courant quoi franchement parler fan yii la gars yi même pas une semaine. le 16 lañu waxone mais après teg nañ ci yenen 3 jours sax ñuy dogu ñew andi courant ndox mi bu ñewé tay suba du ñëw ah ndox mi daal defa ah je pas xaw nak mais dal daral bépp laa déggoon na dañuy am courant quoi. mais da ngeen ni da ngeen ni am difficulté ndox yéen tamit. Hmm? da ngeen am difficulté ndox. ndox waaw des fois dañu jënd ndox sax quoi des fois auto bi mën na ñëw may ñu des fois du ñew quoi des fois bu ñëwul ñu jënd quoi. Ah, hmm. ban message ngay lancé. waaw ah, maa ngi lancé message client yi.

waaw waaw franchement waaw chaque année ñu ñëw quoi ñooñu. d'accord merci papa Ndié nuyu naa maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm. papa ah, xam-xam la si yarum xar depuis ñaanta temps yaa ngi nekk di def opération. ma xar maa ngi nekk 2007. 2007 naka ngay naka nga dundee ren. ah allah. yàlla moom suturaal nañu am nañu xar bu góor alhamdulilah. am naa xar bu góor yàlla suturaal na ma. Ah, mu ngi jar wala. waaw jar na alhamdulilah. xar mo am xar amul am xar mo am xar da mo mo mo ab prime xarat xar da mo mo mo ab prime xarat xar da mo mo mo ab prime xarat prime xar mooy lan ñaata nga jaayee comme da nga ne jar xar maa ko jaay ba deux cent soixante-quinze ma ko jaayee waaw nga fas yéene jënd yeneen pour avant tabaski ji wala da ngay bàyyi ah man de aw ma espace moo tax mais dañ la gis yow da ngay yaralaate ay waaw kañ dama yaralaay xar dëgg waaw ban message ngay rat ah, loolu moo xam naa si xar si affaire ndimbal waaw gars yi moom maire yi moom maire yi moom am bu rat waaw. merci beaucoup. ok merci. frère nuyu naa. waaw maa ngi siyaar bi naka la. Ah, Baba Laye. Ah, Baba Laye nag depuis ñaata temps def opération. bon mu ngi bëgg ci quoi vraiment. Euh, depuis ay euh, maa ngi bëgg def ay 8 hein. ans waaw. naka nga dundee euh, ren préparation tabaski. waaw vraiment préparé nañ ko ci jamm sant nañ vraiment nice quoi ah. waaw. amu leen si benn difficulté. bon toute difficulté rek parce que bon boo seetloo xama Abdou Naar moo ñu daan may xama ngooñ bon may ñu courant avant gaay yi ñëw mais xama da lay na xama euh dem bi mu dem màkk bon manke nañ fi quoi parce que ben instant. bon politique gu ma quoi mais xam nga da di koo ne vraiment daf ñu doon gëstu bu baax quoi xam nga amoon nañ jafe-jafe que fi ñu nekk nii dañ fi waroon jóg bon ñaan nañ leen vraiment may nañ ñu bon ñu xam nga def opération jusqu'à xam nga ñu pare ñu àggale seen travaux yi quoi. mais damaa ne côté bi tamit yéen si rond bi yéen am courant beneen côté bi jëm ci autoroute bi terrain de Ngagne bi amuñu courant loolu naka la demee. waaw wax naa la ko sànq nee naa la peut-être fi nga xamante ni xam nga moom fii la euh, fil bi war a jaar. amaana peut-être bu ñu ko fi traversé oto mën na ko laal te boobaa doon xam nga sécurité quoi xam moo tax peut-être ba maa ngi dégg xam nga foofu place baaba am na ndox am na fa robinet quoi mais xam nga ñun kaasuñu ko ñu tamit oto bi ñun bu ñu gisul oto bi xam nga bu ñuy sang suñuy xaar dañuy jënd ndox bu ñu ko gisul xam nga euh, mën nañ bu ñuy xont tamit dañuy jënd ndox. waaw xam nga toppatoo moom xam nga mënul ñàkk parce que xam nga ay nit moom xam nga boo leen fi tegee il faut leen nga toppatoo leen mais sécurité bi am na xam tegal nañ ñu fi ay xam nga ay gendarme xam pour ñuy euh, gérer sécurité bi tout ça xam nga si ne daal xam nga yaakaar naa ne boo fi indee sa xar war ko mën a gérer xam nga bañ sa xaar kenn waaw loolu laa gis ko waaw sant gërëm xam nga euh, di gërëm ñëpp xam nga sant ñëpp xam nga surtout maire bi moom ñu ngi leen di sant di leen gërëm parce que lii moom xam ma mënoon nañ ñu mën nañ mënoon nañ ñoo seetaan mais seetaanuñ ñu quoi vraiment sant nañ leen gërëm nañ leen waaw sant nañ bu baax di leen sant yéen tamit yéen tele bi yàlla na doon ay télé télé télé télé vraiment macha allah. merci beaucoup. frère nuyu naa. waaw fay nañ la. Euh, depuis ñaata tam yaa ngi def opération tabaski. Euh, depuis euh, trois mois tamit ñu ngi koy def quoi waaw. depuis ñaata ay. ay ñetti at ah, ay 3 ans ñu ngi koy def quoi. nek nit ku si xañ xarañ lool yeen difficulté nga ci nek doon dund. waaw euh, ha bon ba lañuy duggu ci loolu gëna sante sant bon santaat ñëpp sant yoof gep timit di sante aussi tamit euh, suñu maire bi ba paré euh buñu waxé suñu maire bi buñu waxé waxee Abdou Naar yóbbaale na ñep buñu waxé job sar timit tamit na ñep mais gis nañ na timit taxaway bi association bi timit amna solo torop parce que fiñ nek ni bon ñom ñoñu yaatal xam nga. ba nga xamante ni bañ mën a nekk fii man fii def opération bi bu ñu ñëwee ñun comme ñun ay doomu yoof la ñu di élevé xam nga ñoom ñu ñëw taxawuñu tamit loolu dañ siy sant daal de wax na aussi tamit maire bi ñoom amuñu lu leen wax loolu di leen gën a sant aussi tamit ñoom fi ñu nekk xam ne tamit taxawu nañ yoof daal waaw loolu tamit ñu leen si remercier bu baax daal waaw di la déglu la. merci beaucoup. oui merci

man yaakaar naa ne loolu wax dëgg yàlla ñu ngi def li ñu mën dal. ñaata temps euh, yaa ngi koy def euh, wax nga ko mais yan difficulté nga fi. waaw fii moom wax fa dëgg yàlla amuñu difficulté parce que booy seet at yi yëpp ñu ngi teg si bonne condition sincèrement ñu ngi def li nga xamante ne c'est le maximum ñu ngi ñuy indi ndox tegal ñu policiers yi te taalal ñu lampeetu ñun loolu lañ doon xaar si ñoom waaw. Euh, ban message ngay lancer. waaw may wax ne ñii ñi nañu génne ñëw jënd si xar parce que daral bi ku fi dugg di nga xam ne taaru na ñii ñi yar nañ seen i xar te jo teg nañ leen si ay bonnes condition wax fa dëgg yàlla yoof ko gis seen daral di nga xam ne naxuñu seeni xar bon ñii ñi nañu génne jënd si xar yi waaw dañu génnagul nag mais nañu génne waaw. merci. Cheikh nuyu naa. waaw Mariama ñu lay fay. ñaata temps yaa ngi def opération tabaski. huit ans gi maa ngi si mbir mi. Hmm. Hmm. Euh, nga dundee ren préparation tabaski. waaw ren préparation moom metti na méttiwul hmm. ndax tey boo gisee fi ñu fekk nii ah, daaw daawaati géej a ah, yi ko jiitu yëpp ñu ngi daan nekk fële si tali bi mais soo gisee ren ñu ñëw créer fii benn daral ndinaat dañ jàpp ne tamit war na mën a am daral parce que tamit moment yi may jóge fii di dem rond di fa làng méttit gi am foofu a situation yi ñu fa doon daj loolu moo waral ren ñu jéem a créer fii benn DRAL. exactement avant ñuy ñëw si ren yan difficulté ngeen fa daan dund foofu ba tax ngeen jóge fi ne xaar ngeen. waaw foofu moom Mariama yaakaar naa ne liñ fa doon daj ba metti na trop bii jiitu mooy dañ daan am foofu problème mu courant daan nañ am problème mu ndox parce que man DRAL bi fi ma nekkoon foofu noonu fi ma placé woon. pour ñu amoon ndox dañuy mujj chaque jour bu ñu xëyee dañuy fay benn sareet bërigët 500 mu rootal ñu ko te du toujours la ñuy am saa borom sareet yi gaar leen di dogaale si kaw loolu tamit si lii gënoon a metti foofu si la bokk bu ko defee bu fekkee tamit dañ fa comme moment bi ñu toll nii day yomb nawet bu tawee dafa am xari duñ mën a tëdd parce que day metti metti goo xamante ne foofu dafa bane léegi am na nu muy demee rek ndox mi toujours day ñëw si daral yi taaj foofu. foofu moom li ma la mën a wax mooy li fa jàkkonteel métti na trop trop trop wax dëgg yàlla foofu def naa fa plus de huit ans huit ans nekk naa foofu bii daral bi nekkee si biir a biir mhm. laa fa doon ne ba nii yàlla defee ñu génn nekk si tali bi noonu route nationale bi foofu noonu laa fa nekkee suma gars yi. lan moo la motivé ba nga ne xaaral nga ñëw def ko fii ci biir dëkk bi est-ce que tamit fii xawul laa ko tuuti par rapport ak foofu. waaw fii moom wax dëgg yàlla a parce que am na ñu ma oo kat seexu risque yi ni waro ko jël parce que fi dafa ruxé aussi dafa laxu ba paré qualité xar yi nga yor bo nekkoon ci tali bi heure bi yépp a heure bi fekk na nga jaay say xar mais man nak dafa am loo xamante toujours loolu la gëm dama japp ne nit lo mëna yor boko valoriser mu doon produit bu baax foo mën a ne rek nit ñi dinañ la fa fekk parce que tamit fi nekk nii nii nii nii nit xalaatul woon ne tamit dina am daral mais dama toog am ay gannaaw yu ma si waxtaanal ñu conseillé ma ne ma kat comme yàlla dafa def jaay xar léegi moom connaissance la rek boo amee connaissance rek amatul na ñu yor seen i xar jaay ko seen biir kër yi la fi dox bu baax. waaw fii moom wax dëgg yàlla comme ni mu daan doxee fële si tali bi ngay jaay ay client xamante ñoom amul fii parce fii tey booy seet juddu dëkk bi ñi xamante si dëkk bi lañ dëkk am na ñoo xamante ne romb fii dem fële di jënd xar. te man dama jàpp ñoo ñu ñu romb fii ñun dañ ko dañ bëgg lu yomb si ñoom moo tax ñu ñëw fekk si leen. mais ce que tamit du say xar ñoo cher yow lan mooy sa ay prix. waaw ñun moom ne boo fa demee qualité bu nekk mi ngi fa. waaw fii moom wax dëgg yàlla prix xar yi fi ne yëpp raisonnable parce que boo seetloo benn xar laa boo xamante ne war naa ko mën a jaay plus de trois cent cinquante wàññi naa ko ba trois cent xar yi si des sëb cent cinquante cent soixante. benn xar laa fi jaay deux cent ak cent quatre vingt mais xar yi si des yëpp boo seetee ñoom même catégorie la xar boo si xool rek da lay yéen da lay leer leer yàlla na xar yi prix bi ñu lay wax raisonnable na. li fi nekk jar na wala seen ay borom dañ leen di fay ba pare bàyyi leen fi nga yor ba tabaski bi gën a jege. waaw xam nga léegi dëkkuwaay bi dafa xaw a xat am na ñoo xamante ne dañuy bàyyi ba tabaski bi passé astafurlah dañuy bàyyi ba tabaski bi gën a jegeñ ñu fexe ñëw pour jéem a jël seeni i xar xam nga mais nag. am na si ñoo xamante ne moom dañuy waxaale rek dem mais man basé wu ma si kuy waxaale di dem man toujours client bi ma gën a man a jàpp mooy kii xamante ne dañu waxaale ba juboo nga dagg nga nga yekki sa xaalis jox ma wala boo mënul yekki sa xaalis tamit lépp jox ma nga jox ma avance bu ko defee ma tekki xar mi pousse si ginnaaw parce que boo seetloo xar yi si ginnaaw yëpp jar nañ xar yi ma bàyyi nii si kanam mooy xar yi xamante ne jaraguñu te am naa si yaakaar ne incha allahu rabbi dinañ jar. yow rek yaa moom yow rek yaa moom xar yi dafa am ñoo si liggéey. non xari yi nag dafa am ñu ñu siy liggéeyal parce que tey jii fii niñ toog nii saa yu xëyee rek gars yi dañuy ñëw man miy waxaa yow nii sax finaanu ma finaanu ma fi am na ñeneen ñu fi finaan ñu bokk la man suma ma grand Mar Thiaw mu ngi fi suma rakk yi ñu ngi fi ay Mbay Thiaw ay moor ak booy yi xamante ne tey ñooy nekk si daral bi nekk si terrain bi chaque jour parce que tamit ñoom toujours seen objectif bépp fii la bu xëyee dañuy ñëw bàyyi liñ jàppoon yëpp ñëw jàpp si tey yàlla tax xar nag du xar yoo xamante ne yëpp man maa ko moom am na si ay xar yoo xamante ne man maa ko moom am na si ay xar yoo dañ ko teg suma loxo pour ma jaayal leen ko mais nag mel ni na tey jii kaddu yi benn kaddu la parce que xëccoo wu ñu dara maar moom ma mag Pape Talla moo ma mag booy yi maa leen mag mais ñoom dañ jël kaddu gépp na ma seexu yaay doxal bu ma fi nekkul it ñoom dinañ xam nañ li war si xar yi bu óoru lekk jotee duñ xaar ma ñëw dañuy ñëw rek réagir. dundin bi tam naka lay demee parce que euh, ñu bari ñi nekk si tali bi dañ leen sponsorisé ñu ñëw di leen may ay saakuy ngoñ genre yow naka lay demee yaa koy jënd sa bopp wala dañ day am. waaw ñun moom wax dëgg fii moom lu fi xar lekk ñun ñoo ko jënd surtout moment bi xamante ne xar yi dafa nekk te jaay ñu dara man demoon na ba benn instant sax dama doon wax naan lii moom wax dëgg yàlla dara jor ko par rapport ak taliba parce que taliba des fois dinañ jekki saay génne ay repas xam nga ñu xool na daral bu nekk responsable bi oola wala saa ñu wàcceel fa camion ngooñ ñu xool daral bu nekk responsable bi ku nekk am benn saak wala ñaari saak mais ñun fii su affaire de dund moom wax dëgg yàlla ñun ñi des fois ñooy xool nan la ñuy def pour xari lekk saaku mburu bi ñuy jënd xari bu ñu leen si joxe suba gi ngoon gi day jeex repas bi tamit ku si nekk ñi nga ah, ñi si ami xar ku si nekk da ngay génne comme tey ji bu dee da ngay xonte 500 nga génne 1000 francs ñen nañu yobale ñen nañu parce que tamit ku jaagul xaram bëgg dundal xaram ci kharam day xaw metti bu fekke da nga fi am plus de 5 xar te ben jaragu si xam nga bu be bu dee jar na sax man na tane mais bu fekke ben jaragu si day xaw metti waaw message bi may lancer moy wax deug yalla di kontaan ci li ngeen def ni ndax li ni ñun ñoko gënon soxla surtout man mi xamante dama ñëw ba ci biir dëkk bi def fi ben daral mu neub trop parce que bëri na ñoo xamante dañ ma doon dama fexel nga dem yof mbolo nga ak ñom ñu def pib bi ma ne len ah amul solo parce que tamit yaakar na ne mbir mi may yëngu nii am na ñu xam amna ci nit ñoo xamante ne tamit dañuy indi ay client ñew fi parce que bima nekké ci si bi daaw daawaati gi dama doon jaay ay Boubacar ay ay Boubs suma len doon jaay ay xar ay maître elas Hadj Diouf ay ñeneen na ñeneen connaissance bu nekk am naa ci si bi foofu te ñooñu noonu bu fekkee dañ ñew foofu fekku ñuma fa amana ka dama ñak seen contact mais dama jàpp ne bu doon maa ngi contact bi situation yi sax du metti du metti mais daal wax dëgg yàlla kontaan naa trop maa ngi leen di sant di wax na tamit wax dëgg yàlla li ngeen di def rafet na trop di sant ñi xamante ne tamit ñoom laay nekkandool fii muy xale yi am mag ñi ndax booy booy yu neex a nekkal lañ booy xaaruñu ma si dara barki alxuraan saa ñoom ñooy jël seen xaalis dem jënd warga gis nga kii xiim nii ñoom ñii ñëpp amuñu amuñu daal xaaruñu si dara saa dañuy jekki saa rek ne dañu war a attaay benn boy bu ndaw dugg si bitik bi indi warga suukur teg ñoom fi la ñuy nekk finaan fii fayuma leen dara wax dëgg yàlla damay dem tëdd suñu kër ñoom ñoo fi tëdd maar day tëdd ñoom xale yi ñoo fiy tëdd xam kon aw ma seen fay dama naan daal gars yi xamante ne tamit jëndaguñu xar bu ko defee nañ jéem a fexe dugg ndinaat boo ñëwee ba ndinaat fii arep ah, nu mu tuddati balaa ngay àgg jàkk ji rek arepa mbeng fii séeréer yi di toog dara baa ngi foofu moom macha allah quoi. ok merci Mariama waaw balaa dara laa xew rek damay nuyu surtout Yoff mbooloo nuyu ñi nga xamante ne tamit mooy suñuy mag waaw opération bi comme li nga wax rek doon na loo xamante ne man booy seet ku ma gis si opération bi dina la jaaxal ndax man du ma éleveur mais sama rakk Baye Cheikhou moom ak ay frère am ñii fi ne loxoom set surtout moo fi ne mu ñëw di ko jàppale. Mhm. waaw fii daal li ma la mën a wax lu bëriwul maanaam métti na méttiwul benn côté lii tax ma ne métti na mooy lan fii mu ne moom dafa ruxe mu ngi newoon fële ci rond point bi mais da doon dund foofu ay moment yoo xam yu critique moo tax tey mu déplacé wu ñëw fii si dëkk bi loolu moo tax ma ne la métti na mais d'une part li tax nag ma ne la méttiwul mooy lan nekk na fi ba pare ñi nga xam ne tey ñoo ko war a jàppale surtout ñenn ñi ñu ngi koy jàppale moo tax ma ne la méttiwul si côté boobu. waaw li may lancé mooy xam nga lan ñii di jënd xar laay waxal dafa am loo xamante ne man surtout dama koy gis tout le temps gis nga boo paree pour jëndam xar yor fan weer boo ñëwee waxaaleel xaram fan weer wala xaram ñaar fukk ak juróom comprendre nga mais da ngay gis ku yor fukki dërëm bëgg a waxaale xaram deux cent cinquante mille. bu ñu waxee ñu génn naan xari dafa seer xari dafa seer xari seerul nit ku nekk da xam nga yow lii nekk sa poos xam lii ne lii ne si say yaa gën a xam lii nga bëgg da ngay jubal si loolu nga dem droit au but loolu rek moo ma xaw a déranger mais du dara mais dun part rek foog mu demee noon ndax dëkk bee xaw a metti mais lancer tamit benn appel surtout si côté maire bi ñi nga xamante ne ñoo nekk si rond bi maa ngi dégg foofu yenn critiques yi façon bu ne ñenn ñi nee nañ pour ñu am courant dañuy fay ñeena ñi nee nañ pour ñu am ndox dañuy sonn ñenn ñi nee nañ repas bi bu ñëwee xar yi la ñuy jox ñeneen ñi duñ jox côté boobu damay ñaan maire bi ñoom ñoo njabooto yoof gi yëpp te xam nga ñëpp seen i doom lañ a seen i rakk la surtout bu ñuy partager yenn affaires yi nañ ko partager ñëpp bokku ci buñ ko yemaale fenn même que Baye Cheikh mi nekk fii côté Ndinaat sax war nañ mën bu ñu déggee éco bi na Baye Cheikh dafa yor daral Ndinaat nañu ko indi repas am ak ay besoin man côté boobu loolu laay lancé si maire bi di kontaan nag si lii ngeen def ni yéen waa Yoff mbooloo ndax lii dafa rafet ndax tey fi tey ñi nga xamante ne ñoo nekk si yeneen région yi télé yi leen fay fekk soit ay TFM wala dara télé yooyu télé diaspora bi mais lii nag dafa doon ñun ñoo ko moom ñun waa ba pare surtout ngeen ànd booy di leen jàppale ba pare nag may gërëm ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu dooleel surtout ñun fi ñu ne nii Babacar moo ko moom Mbaye Ñanga te mu ne si maire bi moom moo ñu aal fii lu yeew ñu ko defuñu la dañu aal ba pare ñu dëkk ci koñ bi ak ay kilifa boo duggee kër gi suñu ginaaw ku si mel ni papa mu mundooy ak yeneen kër gi ay papa Kodi ñooñu chaque jour fii la ñuy ne di attaaya du yuuxu mënoon nañ génne na ñu ngi leen di déranger waaye ko côté boobu ma leen si gërëm di leen encourager di ñaan yàlla nag tabaski ñu dugg si jàmm mujjee si jàmm ñu fekke ka peace and love maa ngi nuyu nag ñëpp daral bi nag dañ fi am koo xamante ne mooy xutti carton yi Ibulaay ñëpp xam nañ ko moom moo gérer loolu booy tamit am na ñoom te ñoo gérer attaaye fii moom mooy dara faramaareen wala yéex yëpp a ngi fi wasalaam merci. merci beaucoup comme ni ngeen ko gisee nii si euh, suba ba tey ñu àndandoo ak euh, yéen si préparation tabaski euh, ngeen gis difficulté yi nga xamante ne nii ñi yor dara li ñu ngi koy dund ñi yor nañ ñi yoruñu ñii mi ngi dox ndax doxul ñu nekk dans cinq jours de tabaski macha allah ñu ñëw fii nga xamante ne tam mooy si biir dëkk bi ñu fekk fi Cheikh dégg ngeen tamit difficulté yi nga xamante ne moo fi moom la fiy dund ñuy ñaan rek waa mairie bi comme ñoom lañ mën a waxal. jàppale bi mu nekk loo xamante ne nii dafay wër euh, yof gi yëpp euh, pour doomu yof yi nga xamante ne bëgg nañ daan seen doole yàlla dimbali leen ba ku si nekk yaakaar bi nga am ci xar yi yàlla defal la ko merci beaucoup et à la prochaine